maanaam la ay ca bébé internet ak ñoxor ay ca bébé internet ak ñoxor ay internet ak ñoxor internet ak ñoxor ñoxor moo takk moo subu xonq bi ci bopp bi ay ca at bi sifflé na bébé internet ak ñoxor bébé internet ak ñoxor eh bébé internet cokkaas na léegi laa ilaaha illallah bébé internet ñoxor fayu na bébé internet daw na jël ko mu daal di bañ dante na dajante na ñoom ñaar bébé internet ak ñoxor bébé internet ak ñoxor bébé internet ak ñoxor ñanga ca ma ngay dóor suuf xale yaa ngi noonu ñaari xale yi bébé interne yi rokko ci suuf waaye ñoxor na fa bañ bébé internet ak ñoxor ñoo ngi fi nga xamante ne mooy Bambey ñu ànd ak petit production borom ngoy Aliou Sylla bébé internet ak ñoxor bébé internet ak ñoxor oh mu ngi koy rokos. internet ak ñoxor. ñoxor. ak ñoxor. internet. laa ilaaha illallah. bébé internet ak ñoxor ña ngay xeex. dooraat na jël na ko. lan mooy xew. ñoxor. ñoxor jàpp na ñoxor lan lay am foofu ñoxor ak internet ñoxor ak bébé internet ñoxor ak bébé internet seen combat bi yombul ñaari xale yi combat bi yombul combat bi yombul combat internet ak ñoxor mooy deuxième combat de la journée. ndeysaan. bébé internet ak ñoxoru ndeysaan kooku mooy seera. nga ca côté saaku ya mbaa day génn wala lan. ña nga ca côté saaku ya. dugaat ci biir. xale yaa ngi bëree. bébé internet ak ñoxor ñoxor moo takk moo suufu xonq bi ci bopp bi. internet ñaari xale yaa ngi bëree. ña ngay bëre génne ñoxor ak bébé internet. ay ca at bi sifle waat na. ayca bébé internet door léegi waaye dalul jël na ko bébé internet ak fils ñoxor laa ilaha illallah xale yaa ngi bëre dooraat na ko ñoxor fayu na jëlaat na ko ña ngay xeex ca kaw xeex xeex mbaa door ah doy na waar waa waa ñoxor mi Ardo waa Ardo ni ko lijjanti laa ilaaha illallah dóor yaa métti. dóor yaa métti. nga ay jàmbaar lañ oh! noonu. xeex nañ xeex bu metti ñaari xale yi. Senghor daa mel ni laa wuyoo turam. ndeysaan dégg gaa ngi noonu di commentaire. xale yaa ngi noonu. internet deux ma nga ardo. dañoo am arbitre. dañ def arbitre bi kooku moom mooy Njoxor numéro deux. rajo bi mooy deuxième combat bi. internet deux mi nga ardo. Njoxor dina ma ngi noonu. waaye lu waay waxati waxati xam ne. sa Ndiakhar 2. li nga xam ne moom mooy séerase bi am na bële bi ñëw. waaw ñëw. Boy Sadio. moom la indi ak caatu Dakar. Boy Sadio ko indi. ak caatu Dakar. ndeysaan internet moo indi internet numéro 2. ndeysaan cee lamb. ñoxor doo ngi dóor dóor de mën ko dóor yi dal na waaw gaa ngay wax ca commentaire ba de ñoxor wala fils de internet bébé internet mu ngi noonu ardo won leen ñaari bëri ci biir géew gi woona leen daan na daan na ko bi joxe victoire bi arbitre bi joxe victoire bi daa teg daa teg mu ngi noonu waaye bañ na mu ngi noonu mu ngi noonu ñoxor a ngi noonu <laughs> bébé internet a ngi